finalement damay ñibbi parce que dama fekk jàkka ji tëj quoi jumaa ji ubbiwul fekk fekkuma fa kenn quelques personnes laa fi fekk ñu ñooñu tamit ñu ngi taaw foofu quoi mais kenn ubbiwul jumaa ji quoi moo tax ma ñibbi. ah keroog dañu déggoon ne dañu libéré dañu war a ubbi yi ñuy julli quoi moo tax ñu ñëw xool ba xam quoi mhm. ah ma moo ñu ñëw ñu xoolaat ba xam mais gis naa ne ba tey dafa tëj quoi. mais heure bi moom daan na fekk mu tijji. moo tax ñun ñëpp ñu jàkkooroon na dinañ julli daal man daal maa ngi am yaakaar ne dinañ julli incha allah. waaw mesures yi nag euh, lu ñu rafetlu la euh, ndax it euh, mbir bu fekkee da nga dëkk ak moom te xamuloo kañ ngay taqalikoo ak moom sa jaamu yàlla yit da ngay seet noo def ba man ko cee def waaye comme wax nañ ñu tijji ko dëgg-dëgg ñëpp dañoo war a nag tijji te ñu jël matuwaay yi su ko defee incha allah yàlla mën nañu dimbale. waaw waaye tëj bi moom wax dëgg yàlla fu ne moom waratul comme xas nañ joxe ndigal. comme ay jullit lañ te jullit yi dafa am lu luñ ko sant euh, jullit euh, la ñuy seet maslaha jàkka ji jumaa ji lan moo lan la lan la attan ci condition yu ñu joxe rek su boobaa yooyu la ñuy respecté rek su fa yeggee it ñeneen ñi buñ ñëwee dañuy xam ne jumaa ji fees na dañuy daal di dem loolu du yàq dara incha allah. waaw xam naa ba léegi loolu it mu ngi des ci xelu nit ñi loolu moom ba léegi moom ndax boo xoolee gis nga ñu bari ñëwuñ. kon yaakaar naa loolu ba léegi mu ngi des ci xelu nit ñi. Euh, damay ñëw gars yi ne imam bi nee na ubbi wuñ noo xamuñ lan moo tax. Euh, man nag ci beneen jumaa bi laa nekk mais ñun daawuñ julli bi ñu tëjee ba léegi ñun julli ñii ñëpp dañuy ñëw pour julli mais kenn julliwul. Hmm, jumaa ji tey julli ci jumaa ji julli wuñu tey. Euh, li tax julli wuñu ko dafa nekk loo xam ni suñu xel def ci teeyagum yeex seeguñu ci am argument yu wóor yoo xam ni mun nañ ci tegu pour ubbi jumaa ji parce que jumaa ji bu muy tëj dafa am ci ay conditions yoo xam ni ci lañu tegu woon ba arrêté julli bi sharia nag lu mu xam su fekkee ne ngànta dab na jullit ba am limu ko tere te fekk ngant gi moo ko ko tere en tant ngant gi ko tegu woon ba teree ko lu teggeekuwul du am sañ-sañ dellusiwaat yi li mu nekkoon di doxalaat de ngant moo la teree def dara nga waroon ko def ngànta tegu la ba bàyyi loolu en tant que ngànta bi lu tegu woon ba bàyyi loolu teggeekuwul eh, amu amagoo bunt pour teggi yow tamit li tegu woon te ngant gi ñu tegu woon ba jumaa ji arité mu ngi continuer ba léegi tegee ci kaw nit ñi te mu nekk danger boo xam ne ñëpp war ko daw war ko moytu seen lay kattan ci ni ko islaam gise islaam gis gisam dafa ni jullit bu waree moytu na moytu bu waree fegu na fegu bu waree def sabab boo xam ni am na ci njorta bu defee sabab boobu dana am lu ma ko dimbalee na def sabab bi intérieur am sukkandikoo ci yàlla wakiilu ci yàlla xam ni su ma fajoo jël traitement yàllaa may wéral su ma jëlul traitement yàllaa may wéral waaye yàlla moomee di wéralee moo ma nii naa faju kon su ma bàyyee faju bi ma ni may wéeru ci yàlla googu wéeru yàlla du ko accepté du mat du mat euh, jamono bi ñu nekk ñi waroon ànd waroon ànd taxaw waroon ànd jaamu yàlla waroon ànd ku nekk woolu moromam tafu ci moom bu ñu demee ba yàlla ci coobari am am lu mu xewal tiitaa ngi am ku nekk ragal ki mu dendal ku nekk di ko moytu ku nekk di joortu ni li may daw mbaa nekkul ci ki nga joortu koo ci moom mu joortu koo ci yow te mun na am si islaam dafa ni bu malee noonu na ngeen séparé wu na ngeen écarté wu ku nekk na des ci bërëb sala sala moo waxoon ni bu ngeen bu leen jël ñu feebar di leen tabbil ci biir ñu wér bu leen jël ñu wér di leen tabbil ci biir ñu feebar balaa wallante am yàlla yàllaay joxe waaye yàlla nii la ko tege